wax ba wax ba mool musique bi neex na rassemblement bi neex na waaye buñ fi jógee visite de proximité la def dem nag ci gox par gox ndax 19 communes Dakar yi incha allahu ku ci voté candidat Benno Bokk Yaakaar ca fas ba boo noppee da ngay defaat deuxième vote deuxième vote boobu boo ko defee ca candidat ba nga xam ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr ca fas ba kon ñun ñooy dem 23 janvier te ville de Dakar te ñàkk faa dem wóorul ndax booy dox da lay kuy dox ndax président n'a pas n'a pas faussé la route il a la personne de notre futur maire Abdoulaye Diouf Sarr ndax li ne fànn jeex monsieur le futur maire dafay defar lu ñëpp teg bët kon na kooku yokk naa àndal kon boo leen jógee yéen responsable bi maa ngi leen di invité ngeen jël ci seen mbootaay seen doom ngeen waxtaan ak ñoom te xam ne vote bi ñaari vote la bu njëkk ba mooy ki nga xam ne moo ne seen commune ba ca toog ca fas ba ca fas ba laa wax de bu maloo bee ba ca fas ba ca fas ba ba ca topp mooy meeru ñaari fas la ñuy jëloon jërëjëf wasalaam. tey sœur Tarek Sylla moo ko organisé pour gunge ma pour que ma la ville de Dakar ma ñëw ànd fii ak mon ami frère Zator Mbaye futur maire de Sacré-Cœur Zator dama koy wax ne moo am la mission la plus exaltante parmi les seize candidats yi nekk 19 par contre yi nekk à moom xam na li tax may wax loolu ñu war a gagner la ville mais ñu war a gagner les 19 communes du département de Dakar lu tax il est urgent Bokk Yaakaar je salue passage notre camarade Mbacké Seck ak Ibrahima Gueye de Benno Bokk Yaakaar ak euh, tous les camarades de Benno lu tax Benno war a gagner la ville de Dakar dañoo war a corriger yoo xamante ne yéen ñi dëkk Dakar sentir ngeen ne day tardeel Dakar lan mooy tardeel Dakar mooy xeex bi am entre ñi yore Dakar actuellement xeex bi ñuy xeex di ko déclarer ñi xamante ne ñoo réew parce que bu ñu la dénkee collectivité locale muy Dakar dañu bëgg nga dox si soxlay waa Dakar mais dénkuñ la ko pour nga yow sa programme rek mooy xeex ki yore réew mi pour fexe noo ko faagaagal bu fekkee ne loolu mooy sa programme da ngay fàtte soxlay waa Dakar toppatoo sa soxlay bopp sa soxlay bopp mooy jéem a renverser le régime donc dafa jot que Dakar comprendre que ni maire li ñu koy doyee. lu taxaw mu xeex un régime maire ñu ngi koy day mu régler école dëkk mu régler centre de santé ak poste de santé mu régler emploi des jeunes mu régler cadre de vie mu régler assainissement mu régler beaucoup de choses yoo xamante ne population yi ñu koy laaj mel loolu ñun si lañu taxaw pour que bu falee le 23 janvier 2022 ñu changé doxalin fii si Dakar ñu def doxalin boo xamante ne di ngeen xam ne marché Dakar am na maire yu koy taxu taw parce que malheureusement yéen ñëpp dañuy di fréquenter les marché de Dakar mais bu ngeen diggee si marché yi dañ ko bàyyee commerçant yi toppatoo ñu ko toppatoo ñu hygiène toppatoo ñu salubrité il faut duggee rek pour jël ay tuuti wala tuuti ñu nag li ñu bëgg mooy. taxaw pour que espace de travail si Dakar nga xam ne maire yi intéressé nañu loolu nag pas-pas ak vision bon nag le mouvement ànd ak Doussal defaral Dakar je compte sur vous je compte sur vous pour que ngeen dugal ma dans les Dakar parce que politique il faut que mu évoluer il faut fekk nit ñi séducteur pour expliquer lan la ñu bëgg je compte sur vous pour que si parce que bu ñu deful loolu malheureusement am na ñoo xamante ne seen politique yëpp politique bu bës la dans les réseaux sociaux te loolu day tax nit ñi seen xel jaxasoo ñu nag il faut ñoom ñu démarche haute démarche boo xam ne dañuy fekk nit nekk si biir jox ko programme expliqué li def mais bi a teg à la ville le janvier lan moo war a nekk taxawaay ak lan mooy engagement pour les Dakar waa les Dakar bon de loolu laa doon danaa dem si wax guddi na mais incha allah d'ici le 23 janvier danaa jël sama tànk bu ma mënee Dakar waa bu nekk si biir kër danaa ko parce qu'il est extrêmement important au soir du 23 Dakar ne Dakar bu bees dañu ko taxawal avec Abdoulaye Diouf Sarr comme maire de Dakar avec Abdoulaye Mbaye comme maire de Plateau avec Moussa Sy comme maire des Parcelles avec Aliou Ndoye comme maire de Plateau et cetera et cetera loolu mooy tax Dakar kenn foofu nga xam loolu laa doon daal di ko wax ak baax salaamaaleykum